وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحباب يريد الإسلام من المسلم أن يكون قويا في رأيه وتفكيره وفي قوله وعمله قوة تدل على استقلال في العلم والفهم والعزم وتنبع من البصيرة والهدى لا من العناد والاستبداد والمسلم ذكرا كان أم أنثى لا يجوز أن يكون إما يندفع وراء كل تيار ويسير في آثار كل ركب لأن الله حين كرمه بالإسلام كلفه أن يوجه البصرية إلى الطريق الخير وأن يأخذ بيد الإنسانية إلى منهج الهدى والرساد والمودة والصدق والخلق الفاضل نعم إن المسلم لا يكون إما يستمع لكل نائق وينخدع بكل بارق لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل من المسلم داعية إلى الله فهو صاحب دين قوي سوي فيه العلم واليقين وفيه العقل والوجدان وفيه المحبة الخلق وطاعة الخالق mbokk yi ginnaaw bu ñu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko suñu diina ji muy lislaam dafa bëgg ci jullit mu nekk ku dëgër ci xelam ci xalaatam ci ay waxam waaye ak jëfam jullit boo xam ne dafay am liberté am indépendance ci xam-xam bi mu am ci yàlla tabaraka wa taala ak xam bi mu xam diineem ak gis-gis bu leer bi nga xam ne moom la am lool di ko wommat di ko yóbbu ci borom bi tabaraka wa taala ab julit islam buggul ci moom mu nekk ku fétteerlu mu nekk tooñkat waaye buggul ci moom mu nekk al toppe lu mu gis rek roy ci ay wax ci ay jëf nekk toppandookat nekk roy daat ab islam buggul loolu ci ab julit moo xam julit bu góor la moo xam julit bu jigéen du dagan ci moom benn yoon muy nekk al toppe lu jóg mu topp gis ngeen guddik bi tey ci lan lañ nekk nee na ñu ngi premier janvier ngeen wax lu waral loolu parce que ay al toppe lañ lu jóg ñu topp ñaata jullit jóg ñoo te ñoo fekk 31 décembre ñaata ñaata ci ñun tey ñoo xam ne ci àll bi lañ fanaan ay góor ak jigéen ba ba set bu dee góor ñi jigéen ñi yeewuñu bu dee góor ñi ñett na ci ñoom sangu nañ ñoom juma loolu ban diine la ban diine moonu sant ne dañuy fanaane mooy yàlla ba bët set di ko laye ay feet est-ce que feet bi feetu jullit la est-ce que ñu doon feetu démb feet bi ñu nag ñoom ñoo bokk feet bi est-ce que ñoom lañ ca wax ñun buñ ko waxee loolu dinañ def ci suñu diine ba tey est-ce que loolu du ñu génn ci diine mais yàlla dafa am doom ba ko doon ngénte de loolu mooy wax bi de 24 la juddu 31 lañ ko ngénte mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala nañu xam ne ab jullit du nekk roykat ab jullit du nekk toppandookat ab jullit bu góor ak bu jigéen du dagan ci moom mu nekk al toppe yan def yi war a kulli tayaar bépp ngelaw bu jóg rek daal lay fukk nga nga naw ànd ak moom xew-xew xew rek xewandoog yow saa yu nit ñi di jëf nga jëfandoog ñoom lu mu mën a doon rek ñu fekk la ca biir ab jullit du mel noonu ñun fan lañ ko su tabaski jotee ñu tabaski su korite ku jotee ñu korite su gàmmu jotee ñu gàmmu bu mag lu jot ñu def trente ans ñu def ñun fan lañ ko ñun ban yére lañ sol ñun lan mooy sunu couleur lan mooy sunu melokaan melokaanu naa fekk laa ilaha ula wala ilaha ula muzabzabina bayna zalik bokkuñu fii bokkuñu fee ñu ngi ci digg bi lu jóg rek ñu def loolu mooy melokaanu naa fekk te loolu yàlla daf ko ŋàññi ci alquranu karim mbokk yi ab julit wala yasiru fi aathaari kulli rak nekkul oto boo gis dugg nekkul fas bu la romb nga war nekkul mbaam moo gis yéeg nekkul garab ne waroo yor jikkoy picc garab gu la neex tak sax julit warul mel noonu li anna allaha ina karramahu bil islami kallafahu an yuwajjiha al bashariya ila tariqi al xayr borom bi tabaraka wa taala keroog ba nga nekkee jullit la la sant yow jullit ne la jàppal ci loxo addina bi andil ma keroog ba nga ne jullit la la la yàlla sant nga taxaw ne la génneel nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer kon yow amoo droit woo nit ñi jëme leen ci lëndëm soo woowee jaamu yàlla yi foo leen war a yóbbu ci borom bi tabaraka wa taala est ce que loolu moo am tey ci sunu kër ñaata ci ñun laa wax bi fan lañ fanaan moo tax yàlla xakim la da ngay xëy da ngay gis ku fanaanee di ma njaaloo ba ba set di fecc di cappi cappi xoolal dëkk bi dégg ay pétard kenn du dégg te ñi koy taalib ay doomu jullit lañ te ñu ci ëpp fondé lañ reere amuñu sax lu ñu lekk amuñu lu naan parce que ay baadoola lañ ñaar fukk ak ñun ñu ñam benn téeméer lu mu jënd ko fetaar fanaane koo taal ci guddi di tël tëli bi min wi jotee daanaka dëkk bi gën dëgg ci dëkk boo xam ne nee nañ Cheikh Ahmad Bamba mooy seen kilifa Alaaji Malik mooy seen royukaay Cheikh ku nekk am nga kër gooy woote woo koo xam ne tey bu ne woon tëll dajeeg yow ngay def loolu mu génn ci yow parce que day xam ne yow du dëgg ko moo ko dafa wax la neex rek dañ xoolaat suñu bopp mbir mi du ay woote wu rek naan man fii laa bopp mbir mi mbirum pas-pas la mbir mi mbirum ngëm-ngëm la imma shakiran wa imma kafur da ngay gëm baa nga wet amul man fépp laa bokk loolu mënul nekk munoo bokk fépp kenn doom nga mën a bokk da ngay nekk jullit jox sa bopp yàlla wala nga nekk yëfër boo dee dem safara mbokk yi ab jullit yàlla tabaraka wa taala da ko sant mu jàpp ci loxo jullit yi jaami yàlla yi foog taw ak ñoom indil leen ci borom bi tabaraka wa taala loolu la yàlla sant ab jullit ndax keroog ba ngay nekk jullit yàlla dafa la sant nga jubanti doomu aadama yi xeeb yi indi leen ci lu baax wa yaxusa bi yadi l insaniya ila manhaji l huda wa rashad na nga jàpp ci loxo doomu aadama yi indil ma leen yi man yàlla jaaral leen ci yoon wu jub bi yoonu dëkk yoonu jikko ju rafet yoonu mbaax yoonu bëggante yoonu jàppante yoon woowu la yàlla tabaraka wa taala sant nu pour ñu jàpp ci dimbalante taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan dimbalante leen ci lu baax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci lu bon ak ay bakkaar mbokk yi jullit ca dëgg dëgg dëgg warul nekk roy dàq koo gis toppandoo ko ba dàq ko mbir mi ngay def tey looloo am ci jëm xale yu góor yaa ngi ni ñan la ñuy toppandoo ak yahud ak nasaraan léeg-léeg sax nga gis ku gàddu ba sangu jumaam di dem jumaam yi karas karas tubéy ji te day dem jumaam bu fekkee sa jigéen ñala moom kenn solatul yére ñépp def nañ ay yaramu neen yaram yépp a ngi ci biti wéer yaa ngi ci biti jumbax yaa ngi ci biti ci ay jullit ñoo xam ne seeni baay ñu ngi ci jàkka yi du ñu wàcc jàkka yi Fatima lañ tudd Xadija ak Zeynab kan la ñuy nag suñu bopp billahi allazi la ilaha illa huwa melokaan yooyu ku ci sa doom dee yaa moom yëpp ngeen dem safara parce que yow la yàlla di jàpp yow bàyyi ne la lu tax yaroo ko woon ci lislaam lu tax nga topp ko ci li ko neex topp booba man yàlla ci lu ma neex mbir mi mbirum responsabilité la soo bañee ku la mere ba nga bàyyi lu yàlla santaane ëllëg yàlla dina la mere laa taata li maxluqin fi masiyati alxaaliq doo ut sa waa kër ci lu leen neex ci meru yàlla tabaraka wa taala yonent bi saa sallam ne laa yadxulul janna biis day gis di dugg àjjana saaba yi ne ko mooy kan mu ne alladi yarda al xubus fi ahli koo xam ne waa këram bu ñuy mooy yàlla mu ne bu ñu màggee mu dañ ay xale lañ wala koo xam ne yu xirru suuf fi ahli waa kër gi bu ñuy def lu bon moom day noppi du wax dara day tegale ay tànkam fële yor kurusam di kocc kocc dafa ne moom bokku ci yonent bi nee na kooku du dugg aljanna kooku nag tey bu ñu koy xool ci xeet bi ñaata la suñu xool borom kër yu mel noonu tey laa wax ci biir kër yi ñaata borom kër yoo mel noonu bu fekkoon ne réew mi ay jullit lañu duñu feetu 31 décembre waaye lu muy tekki mooy da ngay dégg ñu ne Sénégal état laïc la nan la Sénégal di nekkee état laïc nee nañ téeméer boo jël ñaar ñoo dul jullit kon ñan ñoo fi ëpp jullit ñoo fi ëpp kon lu tax ñu feetu 31 décembre rek nag gëm gëmu yàlla tabaraka wa taala nekk jullit mbokk yi du nekk al toppe jullit du def koo xam ne lu melex lu mu seen rek ne or la wala yanxadi bi kulli baarit lu melax loo seen rek dafa ne or la lu weex loo gis dafa ne suukar la ku woote ku ne nga defa ne moo nekk ca dëgg nga dem tey ku woote rek am ay taalibe moo tax tey looy gis ci xeet yi ñii ay ay sabar la ñuy fanaane tëgg ba ba set nee nañ ay jullit lañ ñii dañuy fanaane yuuxu ba ba set nee nañ ay jullit lañ ñii duñu julli nee nañ ay jullit lañ ñii duñu woor nee nañ ay jullit lañ ñii nee nañ dañuy gis yàlla ñii nee nañ façon woote bu nekk di ko dégg Sénégal boo xam ne dafa wuuteeg woote Seydina Muhammad fekkoon ne loolu dëkk la law kaana xayran la sababuuna ilayhi bu doon dëkk la yont yàlla Muhammad dina wootewu loolu woote yu bari yi lan la ngeen defalee lu dul rek nar a dem safara benn woote dong mooy dëkk mooy woote yonent yàlla Muhammad ku woote beneen woote bu wuuteeg woote yonent yàlla Muhammad yaa ngi la topp yëpp ngeen dee dem safara yàlla Muhammad la yónni yónniwul keneen de yónniwul Samba yónniwul Demba Muhammad ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu kon jeex na kon ab julit warul waru ci ay woote yu dul jeex woote bu dégg tem lu melax loo seen dafa ne or la lu yëngu loo dégg rek ñu fekk la ca biir nga toog ab julit warul mel noonu mbokk yi li anna kitab allahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam qad jaala min almuslimi daa'iyatan ila allah fa huwa saahibu diinin qawi sawi fihi alilm walyaqin wa fihi alaql walwujdan wa fihi almahabbatu alxalqi wa taatu alxaliq kan moo tax war a mel noonu ndax dafa am foo jële sa formation ci téere yàlla bi moo la formé yont yàlla muhammad moo la yar yont yàlla muhammad moo la jàngal lan la la jàngal alquran ak sunna teen bi nga naane kenn waru faa naane nekk al toppe war a nekk am yambar waroo nekk koo xam ne sa nopp bi loo gëm rek mu nekk dëgg ndax téere yàlla bi ci lañ la formé téere bi nga xam ne daf laa war a def nga nekk wootekat buy woote jëme ci yàlla ndax diine ju dëgër lañ la yar diine joo xam ne xam-xam moo ci nekk xam-xam kese la alquran téere bi su njëkk a wàcc lu mu wax iqra kon islam diiney xam-xam la ku xamul bokkoo ñaareel bi mooy diine yaqiin yëg-yëg pas pas bu leer yaqiin kenn warulaa ëpp yaqiin ku jëm ci yàlla tabaraka wa taala waaye al aql diiney xel la ku dox moo tax bokkul laa diinu liman laa aqla la islam ku dox bokkatoo ci dox bi julli du woor lu ko neex def islam diiney xel la te islam moo la wax na yow mii waroo nekk altoppe waaye wal wuddaan diinay lewet la diinay am taatuf bëggante diina joo xam ne mahabbatul xalq te taatu xaalif da ngay bëgg mbir bii fii waaye topp yàlla tabaraka wa taala yan nañu yàlla woon dëgg woon yàlla woon ñu ko tuddal ñu sori ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أيها المسلم أن الدين الإسلام ينهى عن التقليد الأعمى واتباع المنقاد ويدعو إلى التدبر والتفكر السليم الذي يميز بين الحق والباطل وبين الهدى والدلال laqad na'a alqur'anu alkarim ala almushrikin taqlidahum al'ama liabaihim قال جل وعلا في محكم التنزيل قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وهذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم mbokki diine lislaam diine la joo xam ne day tere ab julit mu nekk toppandookat ab julit di rey keneen ku dul yonent yàlla muhammad ab julit di xool keneen ku dul muhammad ab julit di déglu keneen ku dul muhammad ab julit di wuuteeg yonent yàlla muhammad islam daf koy tere islam day tere ngay topp ku jóg nga dégg islam day woote ci nga am xel ngay seetantal di leerlu di xalaat ci sa xel mim la jox kenn ci ñun bu duggoon ci kër asalaamu aleykum ñu ne ko wa aleykum salaam exil toog ñu tegal ko fourneau ak fauteuil fan lay toog ñu tegal la gaz buy tàkk ñu tegal la fauteuil ñu ne la exil toog waxuñu la toogal fenn dañ la toogal rek fooy toog ci gaz bi ngay toog wala ci fauteuil bi sikk nekku ci ne yow bi may dégg da nga naan ci fauteuil bi laay toog lan moo la wax ne ci fauteuil bi nga war a toog tooga ci gaz bi parce que da ngaa utiliser sa xel lu tax suñu xel yooyu noonu ñu koy utiliser foofu duñ koy jëlee ci suñu diine ji ay fecc ak way fecc ak way moom lañ def suñu diine fecc ak way di tëgg ay xiin yori sabar yori ndënd dof doflu di def lu kenn xamul li ko tuddee diine islam sori na lool loolu du diine ku tuddee loolu diine sa diine la waaye du diine yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam islam diine la joo xam ne dafay tere nga nekk toppandookat pour nga déglu di settantal ci sa xel xel mi nga xam ne mooy tàqale diggante dëgg ak fen xel mi nga xam ne mooy tàqale diggante lu jub ak lu dëgg diggante dëgg ak fen alxuraan a ngi nii di ŋàññ bokkaalekat alxuraan a ngi nii di xas yéeféer yi di xas naa féq yi ndax ñoom dañoo toppandoo seeni baay yàlla mu ngi woote ci kaw naan ñooñu buñ leen waxee lu tax ngeen def li ñu ne ñun dañoo fekk suñuy baay di ko def moo tax ñu def ko inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim la muhtadin ñun de dañoo fekk suñuy baay rek mel nii rek ñu mel noonu allahu akbar loolu mooy suñu waxte koo fi ne lu tax nga def naan yow lu tax nga bokk ci mbooloo sàngam sax mu ne sama baay noonu la meloon sa baay su fekkee sa baay dafa réer jàngul nag yow da nga koy topp ci loolu ñaata nit ñoo fekkoon seen bàyyi tabaxuñu kër yi ñu tabax ko ñaata nit ñoo fekkoon seen papa yi dawali mbaam ñu jëndi ay posero ay katka lu tax dawaloo mbaam mi continuer ci ne sa papa mbaam la doon dawal lu tax lu tax kon mbokk yi nañuy settantal ci suñuy xel yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woote ci kaw naan jullit warul nekk toppandookat nekk ak ay nit bu ñu defee lu baax nga def bu ñu defee lu bon nga moytandikul loolu la yonent bi wax أيها الإخوة فليعتبر بهذا الحديث كل شاب يندوي ngal la waay jël leen waxtaanu yonent bi bii hadis bi yonent bi wax ne bu leen nekk ay toppandookat ngeen bàyyi seen tubéy yi ngeen di takk ci seeni xotti taal ngeen bàyyi jaaro nopp yi ngeen di bënn ci seen nopp yi ngeen bàyyi seen tubéy yi ngeen di buubal yonent bi saa salaam ñu ne kuy buubal tubéyam waxuma la su jullee amul julli waaye du dugg aljanna kon fu ko jëlee ab jullit bu nekk góor nekk jullit ñu tuddee ko Muhammad wala tuddee ko Aboubacar wala Ousmane wala Ali nga gis mu jël tubéy ak ceinture bi takk ko fii ci ginnaaw suufu suufu ginnaaw loolu yàlla ci yàlla musal ab jullit du mel noonu jullit day nekk ku dëgër mooy tandiku jëfi yéeféer ndax moom jikkoom dafa rafet wa yasiiru fi asaarihim mu bañ a dox ci doxu toppandoo yéeféer yi nu ñu mel ñu mel lii ñu mel ñëpp lan moo tax ñu mel ko mooy film yi ñuy seetaan ci télé yi yéen borom kër yi war ngeen jël seen responsabilité taxaw ci seen kanamu borom tabaraka wa taala bàyyi di contrôler bu baax a baax a baax a baax film yi daw ci seen télé waaye bu ngeen réeree tëdd kër gi di tàkk bu ba set nga nar a dundee noonu ba dee dem ci kanamu yàlla tabaraka wa taala fan ngay mujjee allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaayi wa arina albaatila baatilan warzuqna ala jtinaabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قوله الحق ونتخاذل عن مقاومه الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا ان نتقدم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين واقم الصلاه